beneen bi mooy ville morte bi man du fisc laa jóge du fisc laa jóge sentiruma ko te gis nga ay ville morte ak nañu def euh, li may ñaan mooy Sénégal na am dal man boog bi may ñëw activité yëpp a ngi dox voilà voilà bëggoon a ñëw de waaye activité yëpp jiitu nga ma ci activité yëpp a ngi dox man boog fi euh, ma romb ba yegg si fii activité yëpp a ngi dox donc pourquoi de demander au Sénégal ñoom damay jàpp ni c'est les ennemis de la République et ñii wax naan kaay leen ñu def ville morte nangam ak nangam ñoom heure bi dem nañu uti am yóbbul seen njaboot ñan ñoo ciy sonn moom mooy jaaykatu bitik yi ñii di jaay gerte ñii di jaay fëgg a jaay ñëw ne leen bu leen liggéey bu leen def est-ce que ñoom ñoo leen di compenser est-ce que ñoom ñoo leen koy jox non c'est les ennemis de la République yow nga ne da nga bëgg sa réew na kaay leen ñu wa daaneel suñu koom-koomu réew jour bi ba jour bi bu kenn liggéey pour réew mi bañ a am dara loolu nga ne danga bëgg sa réew wala yow nga ne patriote nga wala nga ne républicain nga non ça je dis man dama gis ne forme de lutte politique manifesteel pacifiquement waxal li nga bëgg a wax mais dañ ci dugal yoo xam ne tey boo xoolee ci yenn réew yi Sénégal bi mu fi commencer mille commencé 2021 ba léegi vraiment dafay gën a jël ampleur est-ce que dañu war a yari suñu njaboot yi ci xeen boobu tey kër goo dugg y avait dans l'adversité poli euh, l'adversité politique ñun bi ñuy jàng politique maa ngi engagé en politique en 1988 y avait de l'adversité politique dañu daa dañu ñëw toog waxtaan après jeex na bu ko laajee ñu def ko mais léegi amatul adversité politique y a de l'anomosité politique démb démb rek maa ngi koy wax ak suma suma ñaari xarit nu Ndiaye ak euh, benn bu tudd Maïssa euh, il est de Sonko bi ñu ñëwee ma ni ko yow sama oto yaa koy defar lu ci nekk. bëgguma li ñu euh, Ousmane Sonko wala Macky Sall la tax ñu nekk ay ennemis defal sa politique comme nu mu la neexee faral ku la neex defal ak ku la neex mais am na loo xam ne réew mi moo ko moom réew mi moo ko bokk buñ ci tolloo nañu ànd bokkandoo bokk ko ñun ñëpp et loolu laay woowee ñëpp politiciens yi lay woo naan la kaay taal réew bi kaay ñu def lii kaay ñu dem xeex kaay ñu grève et au même moment ñoom dem nañu liggéey seen njaboot dem nañu liggéey et c'est donc man je dis euh, ville morte bi ñuy wax man boo sentiruma ko bi may ñëw bon xaw na yeneen i secteur mais man sentiruma loolu te ay tappale rek a tax ñu di ko def nag pour hmm. di euh, ut alal ci ci dos des Sénégalais tappale hmm. rek a tax ñu di ko def